te li ñuy def mooy ñu jaale mbokk mi nga xam ne moo fi jóge di Samba Diallo ñu ngi may wax ne am na xale bu ndaw aussi boo xam ne bii juróomi at la am bu génn àddina ñu ngi koy jaale ay mbokkam di leen masaw bu baax a baax a baax di ñaan yàlla mu xaaree leen aljanna di leen wax ni sama teewaay bi firnde la ci li ñu leen waxoon ay weer ci ginnaaw ni leen bi ñu ñëwee ak bi nawet di jot li ñu namm lépp bëgg ko ci ay projet li ñu leen yéene lépp ci def ko ba lii dootul am xeju fi woon waaye ñu ne leen lu mu metti metti ak lu mu guddi guddi di ngeen ñu gis seen wet te loolu la ñu taxawee ba ñu fi nekkee ba tey saa yu amee jafe-jafe ñëw nañu tey jii ñu ngi nii ci tuubaa ci guddi nee naa leen lu mu guddi guddi dinañu ànd ak waa Touba nekk ak ñoom ci jafe-jafe yi li nga xam ne mënula ñàkk mooy dimbali nit ñi ba ñu pompe ndox mi mu génn ci biir kër yi naam ba ma fi njëkkee ñëw indi nañu ay moto pompe yu bari séddale ko waa dëkk bi ba ci biir quartier yi nit ñi di pompe di génne ndox yi honorable député Cheikh Thioro yi indi na fi ci ci ay pexey boppam ay pompe yu bëri joxe ko ci biir dëkk bi fii bi may jógee dakaar itam am na ay pompe yoo xam ne ñu ngi ci yoon wi ci oto bi di ñëw balaa may jóge Touba dinañu yegg si su ko defee fu mel ni fii Kër Ñang ak yeneen i gox résidence laa jóge gis nañu la fa am aussi fa ko fa ko wër ci ci ndox ñu joxe ko foofu nit ñi génnee pompe yi bu ñu ko pompé ndox mi génn ci mbedd yi sapeur pompier mën ko pompé pour xeetali waa dëkk bi incha allah loolu nag lañ mooy li ñu waxoon laata nawet bi di ñëw ñu ni leen nag bu ñu jàppee ci loolu ba nawet jeex bu soobee yàlla ci la ñuy indi projet yi nga xam ni mooy doon assainissement yu mag yi parce que Touba du dëkk bu ndaw Touba du ay projet yoo xam ne rek ay bassin ngay def ak yooyu noonu ñu koy wër dafa am ay projet yoo xam ne yii ñu ngi koy jàngat bu jeexee ci lañ koy indi def ay financement yu mag état bi investir ñu def ay projet yoo xam ni bu soobee yàlla fii ñuy dem ci nawet bii ñu jëm incha allah 2025 dina fekk li ëpp ci liggéey yooyu pare na te yu bare yi ñuy jooytu tey ba nit yi ci loru dootul am.